bul di gëstu sikkus jaambur nit ñi lañuy def te xëy na sax boo demee gënalu leen yàllaa leen nattoo matari doomi aadama rekk ñu koy tuddee xeeti fakkastalu bul di jéem a xam daal dara ci sikki nit ñi mbaa dara ci seenug matadi mbaa seenug yamaay mbaa lu koy nuru lu sa bët tegu sax dalal di gaaw fenati bokk na ci teggin yi gën a rafet nga bañ di jéem a xam dara ci matadik doomi aadama yi ak luy nuru seeni sikk ndax doomi aadama yàllaa def rek mu matadi yàlla rek a mat lu yàgg-yàgg daal bul jéem a xam dara ci seeni ayub ak seeni matadi mu ne toppal li waa ji waxoon ne nit ñi bul jéem a xam dara ci seeni ayib xëy na sax muy sikk yoo xam ne neexu leen buñ sañoon du feeñ dañ koy làq loola bul ci jéem xam dara ndax ne boo dee jéem xam sikkus jaambur mbaa bëgg a xooti suturaam yàlla xam na sa sikk te day daal di xotti sa sutura buñ dee wax ci nit ñi lu baax daal te nga xam ne loolee dëgg la na ca ànd buñ dee wax ci nit ñi loo xam ne sikk la nag teel saw làmmiñ fexee sax ba boo mënee jóg daal di dem jóg daal di dem bu fekkee kilifa ga nag mën nga leen aaye nga ñu bàyyi waaye bu fekkee ne mënoo ca dara dalal di jóg dem ndax boo demee li ngay sikkale ab jaambur lu mel noonu mbaa ko raw mi ngi ci yow kon nag maandul ci sikkus jaambur jéemal ni nga xam ne moom la waaj waxe woon fexee la mel noonu yow itam dane woon man day damay jéem am jikko yu tedd yi bu ma ko yàlla bindiwutit bëgg naa leen ñoom jikko yu tedd yi te danaa koy jéem a jikkoo kem sama kàttan ni nga xamee itam moom laa bañe ku ma sikkal tax jekki di sikkal kenn mu ne nit ñi buñ ma dee sax damay dumooyu duma jekk di fayonteeg ñoom ndax ki yées ci nit ñi mooy koo xam ne bëggut lu may ku ko xas ba mu tontu la fayu ba weesu fayu ne loolu nag man du sama jikko damay xam ne man la ñuy xas may dumoyoo ko jéggalee ko baale ngir yàlla mu ne nag nit ñi boo leen wegee ñu weg la boo leen xeebee itam wegoo leen ñoom it ñu xeeb la duñu la wekk